seeni maam ak ñoom ñoom la woon démb ñoo xam bu baax na la réew mi taxawee ndax bindkat ba dani il faut donner la parole aux oubliés de l'histoire ceux à qui les documents français n'ont laissé aucune ligne parce que no inventé ni la poudre bu sol ñoo ñooñu mooy ñan les communicateurs traditionnels ñooñu ñan mooy ñi cosaanoo ca péew ba ñi nga xamante ne ñoo fekkee wat te ñooy lañu boo waxtaan ak ñeen ànd ak yéen ñu gis li nga xamante ni moom la siin denc ci ay xar baax jërë ngeen jëf. waaw mbokk yi maa ngi jaxaaw jaxaaw mooy capitalu Sine jaxaaw ñu ngi ko sos ci 1286 buur Sine bu ñu wax Wasila Fay nee nañu tur waa ngi jóge ci jax jax ci séeréer mooy euh, kuy fàkk aw yoon ci am mboob mu mel ne boobu ba léegi buur Sine yu ci bëri fii moo nekkoon seen capital ba ki fi mujj tey di ñoxowaay ñoxobaay Fat Diouf euh, ñoxobaay Fat Diène Diouf bon nag tey jaxaay dugg na ci li ñuy tuddee l'environnement euh, politique économique du Sénégal ndax jaxaaw tey jii commune la maire bi fi nekk ñu koy wax Thierno Sylla bon nag jaxaaw yoo ngi fii nag la buur siin yépp nekkoon fii la kër buur siin nekk daañ fa dem xool leen nan lañ daan fale nan lañ daan folle ak lan moo nekk jaxaaw ci léegi mooy histoire mbokk yi ñu ngi fii ci biir caxaw ñu ngi fii ci place publique bi ñu tudde ko pencum Wasila Buur Sine muy lu taarixe muy lu jar a xam ma andi feek nag sama benn xarit ñu koy wax Mamadou Faye di chercheur di communicateur en histoire dëkk siin xam bu baax li nga xamante ni moo fi sax Mamadou ñu ngi lay dalal ci sa plateau RTS ci sa plateau Sénégal démb ak tey. fii mooy Ngelwaasi la pencum Bour Sine la wala nga ne place publique bu la neexee. fii nag am na signification signification bi mooy fii ngay gis nii mooy place publique fii la buur daan wootee bu soxlaa ñëpp fii la leen di woo ñu fekk ko fi place bi nag tey buñ ko dee xool ci ayat am na juróomi téeméeri at ak ñaar fukk ak ñett place bi am na ko ndax ki nga xamante ne nii moo fonde kër gi yi nga xam ne mooy kër buur mooy ki fonde place publique bi ndax buur day am kër am pénc fii nag mooy péncum buur buur seen bi ñuy wax la Faye en 1440 ci la découvrir fii ci benn rêve ñëw gor penc mi gor kër gi fii nag place publique la buur dafi woote euh, ndaje audience ak toute la population jaraaf yeeg ñëpp teew mu wax ak ñoom benn da ko daan servir waaye fii tamit aussi c'est un tribunal correctionnel ëtt la boo xam ne dañ fi attee ay nit am na beneen tribinal bu fi nekk mooy cuppaan c'est le tribinal des femmes parce que góor ñi fi ñu leen di attee ak fi ñu attee jigéen ñi bokkul fii góor ñi lañ fiy attee cuppaan fële résidence u Linguère jigéen ñi lañ fay attee kon góor ñi ak jigéen ñi bokkuñu sax tribinal beneen tribunal bi mu ngi nekk booru lycée tribunal boobu mooy le tribunal criminel boo defee loo xam ne dafa laal ci crime bu ñu lay attee foofu lañ lay yóbbu su fekkee ne nag li nga def aajowul crime waaye dañ lay atte rek tegaat la ci yoon fii lañ lay andi bu dee góor wax leen ne aussi fii lañ daan fale buur garab gi ngeen di gis fii la ñuy fale buur fii fal nañ fi juróom fukki buur ak benn cinquante et un roi falu nañ ci penc mii boo jógee fii nag buñ la falee fii nga def sa déclaration daal di dem dëkk ci kër gële mooy kër buur mofe e, garer na mofe jasa janga ngel wasilayo na mofe e, garer na mofe jasa janga ngel wasilayo e, gar na mofe garer na mofe jasa janga ngel wasilayo na mofe garer na mofe jasa janga ngel wasilayo ndoxaña ye kidi ndoxaña ye kidi kano kon yo bambake ndoxaña ye kidi ndoxaña ye kidi kano konjo bamba ke abiram e barjo jo borom elemale jasa janga ngel wasila yo abiram barjo jo biram elemane ñoxo bay de yawe roleng abiram e barjo jo borom elemane ñoxo bay de yawe rolengo abiram barjo jo biram elemane ñoxo bay de yawe roleng daliye ye daali juufa maa doxaan jaxa daali daali juufa maa doxaan daali eh, hey olam njaafa daali nga yooxeem daali endey tuuti wal di ñoxo ba sangu cibal yangor ma die njobu ka di bo ñaan ma die sangayi mbayo xaan mino ngor maxure jaxa cucun teeñ kura semu ila dior semu suka biram mbaru sanjay biram mbaru onela kuba biram mbaru man ya geej biram mbaru buka tila jaajel buka tila sambotil buka tila tagjam balbarago serin yeme dalye ñoxo bayo ma doxaan jaxa dali e ñoxo bayo ma doxanja ah, jojo koduma xureja ngooni juuf o ngoon yaande eh, jojo koduma xureje yo how o juuf xama xureja ngooni njayoy mandela hay madey madey ah, jojo ko duma kure jangoni jufa ngoni ande jojo ko duma kure jangoni yow oh, ngoni ande juf ama ah, kure jangoni jayo oh, mandela hay madey madey jawgile iye nyoko bayo madokan jaha jojo ko du hey. Eh, njaayo ma doxoon jaxaw jojom ko duju ama xure jangooni njaayo mandela iye mam sabu ju wa waagu deno bambu xil mam sabu waagu deno bambu xinju ama xure jangooni njaayo mandela ay ma dey ma dey yaw gele jo waaw iya jasali juufa ma doxan jaxawo juube gaynde goorange jase gaynde iya jasali juufa paaragenoxo juube gaynde goorange juube gay iye yo paaroxan jaxawo seene gaynde goorange seene iye ablay seeno paaroxan jaxawo seene gaynde goorange juube iye wala mu yac ci baano seene gaynde goorange seene gay yago sene gaynde goorange sene gaynde goorange boo ñëwee fii di nga ko fekk ndax dessanda mag yi ñu ngi fi ba tax na boo duggee ci ngéwél gi ñi fi seen maam nekkoon démb ak bërki démb àndoon ak bursin tey ñoo fi toog tey ànd ak bursin ñu ko bàyyi faat jéen waaye ñi fi toogoon démb ci jaraaf ñi fi toogoon démb ci bisik yi ñi fi toogoon démb ci li nga xamante mooy couronne royal bi yëpp depuis 1185 de nos jours Atoumane dama wax ne ba tey mu ngi fi ndax Sine nag ci histoire du Sénégal damay wax ne kenn gënu ko ci Sine kenn dàqalu ko ci waaye kenn gënu koo riche waaye Atoumane jërëjëf ci li nga xamante ni tey ñoo ngeen Sine ngir découvert ma ñëw nag ngir def li nga xamante ni mooy xamle leen ak li nga xamante ni mooy li xew kër buur ndax nag ñu baree ngi wax waaye dese na noo xam nan la siin doxe ak li nga xamante ni dox na ko ci biir réew mi su ma lay nuyolee dama lay njëkk a ak Bour Sine ñoxo Baye Faat Dieng mi nga xamante ni tey moom la yàlla def ci bopp nguur gi te ba ko fi yàlla tegee ak tey jiga diwul réew mi liggéey na liggéey bu rëy boo xamante ni àdduna gépp xam nan liggéey ñoxo Baye Faat Dieng nan la toll ci biir Sénégal waaye loolu nag loolu la tam waaye loolu la don tamit ndax loolu mooy li nga xam ne mooy deretam ndax fii mu toog kenn forcé wu ko manto fii mu toog daa jël place am moom ko fees ko del ndax tey boo demee ci histoire Sénégal da ngay gis l'histoire de Bour Sine Coumba Ndoffène Fambaak bi ci gën a siiw la bataille de Somb avec Almaami Mamadou Diakhou Ba waaye nag noonu la bokke ak Coumba Ndoffène mu mag waaye noonu la bokke ak Bour Sine Coumba Ndoffène mu ndaw waaye noonu la bokke ak mbooleem koo xamante ni parmi les cinquante huit trois yu Séné yu nekk siin ndax moom mooy moom moo ko def cinquante huitième noonu la bokkee ak ñëpp kon euh, lii nga moom la toogee toogaay bu mu yel la ndax nag dinaa la wax descendant bi nga xamante ni moom la yor ba ku ko dégg dana xam ne kon Boursine fortaatu woon ko ndax xam nga ne Boursine ku ma doon fa maag jigéenam bi na ko gis bi ñuy wax Selbé Niadi ñu bokk ndey ak baay moom la njëkkati jox ko Boucar Ngoni Boucar Ngoni moom moo daanu ci mett mi ci kër Ngor Boucar Ngoni mooma moom moo jur seen maag jur jëjë ko du borom jur li ngeen njam mi nga xamante ne moo jur Boursine ku ma doon fa ministère Sëñ Tuubaa ci ndar waaye nag ba tey euh, seen maag moo jur teeñ kura teeñ mi nga xamante ni tey moom moo jur ama juuf ama juuf bur si ñoxo baay mi toog ñoxo baay mi toog kon ti ci ndey ak ci baay fortaatuwul nguur waaye nga xam ne tamit Masamba Diène mooy maamam ndax moo jur ki nga xamante ni mooy waajuram bu tedd ba muy Linguère Faat Diène ak Daba Diène ak Maam Kumba Diène ak Taala Diène ndax la tax loolu mooy daa am ci ngar mi ci ndey am ngar mi ci baay téye ko tamit nag te sàgganewu ko kooku mooy Buur Sine Ndiokha Baye ànd ak nag ak jaraafam bu mag muy jaraaf ndub ngom rakam a ngi nii toog di sonar ngom teewal ko fi ànd ak jaraaf bu ndaw muy maaseen seen muy sunu baay bu baax bi nga xamante ne cosaan ak culture moom rek moo ko ñor dégg nga bi nday wayee léegi yaramam dafa daw nga gis nanga nga xamante ni toogee na ko ànd kan far ba njaag ki nga xamante ni maamam njaak laa jigéen keroog bi nga xamante ni tey Euh, portugais ba am lante na ak bursin ku ma doon mu mag ndax daanawul ci xare ci fo rek bi mu doon tam ak bëgg doomu aadama ca la ca la amee jam-jam mu togg ko ci fasam ñëw ba Ndofane maat bakkanam des fa mu denc ko fo daal di daal di wutale fi nga xam te ne moom mooy Joal kooku sëtam moo toog nii muy ba Ndiak di sëtu Ndiak laa jigéen ak kan ki nga xam te ne mooy Bisik Bisik ku ne xam na ne euh, dañuy wax ne siin xamuñ lislaam waaye dañoo juum ndax lu jiitu maamam vers mille six cent Sénégal euh, euh, jaxaaw ñu ngi ci l'islam waaye maamam bokkoon ñi nga xamante ni danoo jóge Maroc nekk ay bindkat yàlla booy leen ak nguur ci ci ci boobu njaayeen yee fi ne ñu wàcc fii siin ba tax tey ndombo ndombog bisik ñu jox ñu jox leen ko ñu koy donante ba tey moom mu des fi moom mi toog tey ak kan di sunu mag ji nga xamante ni sunu baay ji di magu bursin nga xam ne daa jël lépp cëram jëbal ko bursin ndax mooy rakkam te bu ko neexoon mu xëccoog moom ne ko maay mag waaye daa wàccee lépp jox ko rakkam ji nga xam te mooy ño ko bàyyi faat jeen ne ko juddu ci kanam man maay sa mag lu bëgg dox sa diggante yow ma tënk ko ak kat rakkam jële toog ngam xam te mooy daw yëg si muy buur maye mi nga xam te ne mook bursin ñoo bokk ñoo bokk benn benn ndey ba tey ak rakkam ji mbokkal benn baay muy sama magam sans baay Lat Joor moom tamit mu ngi nii toog mook bursin ñu bokk baay ki nga xamante ne mooy Serigne siin nga xamante ni li tax ñuy wax ne l'islam yàgg na ci biir réew mi kii toog ku ne xam na ne baayam ku sa a jaaxle ci biir réew mi ci loo xamante ne seytaan la bu baay boo jàkkaarloog baayam sa ajo faju muy kan muy Mamadou Ba ñu gën koo xam ci biraan nga xamante ne moom mii tey sa direct la ci Mama Jaxu Ba nga xam ne moo tax ma wax leen ne diggante ku mëndoo feen ak Mama Jaxu Ba fi mu doon taar bi ci nekk daa ëpp Serigne Sine ak yéen ñuy toog nekk surtout Mama Jaxu Ba njox baa ngi nii toog nekk sëtu Buur Sine mando Ndoofeen ak kan euh, euh, njoogu seen moom tamit nekk rak ci ki nga xamante ni mooy euh, bisik maaseen ak maaseen mu ndaw mi ñu tuddee maaseen ak sama papa mi nuy wax njoogu njoogu wax naa ko léegi sonar ngom wax naa ko ak sama papa sonar seen mi nga xamante moom tamit ba léegi ci délégation bi la bokk ak waagaan seen ak kan Idrissa Ngom moom tamit bokk kër mbaat mu ngi nii toog muy sëtti jaraaf ba léegi waaye nag bu ma jógee foofa tudd naa buur yi tudd naa li nga xamante ne ñoom ñooy géer ñi waaye nag tey ci biir ngewel gi buur yi danoo mënul dem bàyyi ngewel gi ginnaaw ki ma la présenté léegi mooy faraju ñu bu mag mooy Abdou Ngom mu ngi noonu toog ànd ak rakam Fallou Ngom ñu doon toog ñu léegi ak faralam Léo Faye ak faralam papa faragorong Léo Faye faralam papa ñing ak kan sama doom bu re seen mi nga xam ne moo nekkoon ci dënn bi léegi moom tamit doon paaro jaxaaw ndax sama doom la te loolu suñu ndomb baay la ak kan ki doon way léegi di nday fay nga xam te ne sama jarbaat la maa yaayam ñoo bokk baay waaye ci baayam mu am ndombo moom tamit fara fara fara lam la ñuy la ñuy bàkkoo fii bambado moom la ñuy bàkkoo fi nga xam te ne moom mooy ci couronne royale bi kon li fi toog lépp tey daa nekk loo xam te cosaan la lu si nekk nekk tey daa nekk aada te sin nag moom la muy dox dem ak bërki dem mooy jàmm musul jóg lu dul ku ko tooñ Sine du tooñ waaye ku ko tooñ mu jàkkaarloo yow loola mu nekkoon ci diggante Bour Sine Coumba Ndoffène la ko jëlee ci may sawaali ba xamante ne moom mooy yem ci euh, ñoxo baay mi jàmm rek la ñuy dox jàmm jooju nag moo waral mu jóge fii le 12 mais mu dem usuy fekk Soumboulou Mbaye Diédhiou ñu waxtaan waxtaan mu rafet am fa séjour cinq jours yoo xamante ni jàmm ak teraanga moo ko fa yóbbu ànd bu rey waaye fàtte naa lam ngaari mi nga xamante ne mooy Birame Demba Faye mi nga xamante ni keroog bi teñ jógee Ndofeen ñu soog ko ci fasam mu ñëw ba ci dëkk bi ñëw bay dugg si jaxaaw gëléem nga yës kenn mënu ko yóbbu maam moo taxaw di way gëléem nga di way gëléem nga ba gëléem nga na ñokket mu ñibbi jambag koy lam ngaa di mi toog yaa ngi dégg kon yaakaar naa ne Siin a ngi ni yaakaar naa ngi ni Sénégal a ngi ni ndax lu baax ci réew mi yëpp boo ko tuddee mënoo cee génn jaxaaw ndax lépp fii la joge ndax fii kat nekk na dëkk boo xamante ni ku fi ñëw ci teraanga booy dem boo delloo ba toog di nga xam ne am na la topp ndax nag loola ci maam yee ko jëmbatoon waaye gëstuwaat sëriñ Tuubaa ñëw suuxat ko fi ndax kan digganteem ak Buur Sine Kumba Ndoyeen mu ndaw ndax bi nga xamante nii tubaab bi jóg na ànd ak ñëpp ak buur yi kenn ku nekk xeex sëriñ Tuubaa Buur Sine Kumba Ndoyeen daa jóge fii ànd ak ñeent fukk góor yàlla dem ndar en 1903 taxaw seere sëñ Tuubaa seere bu rafet waaye ca la ko sëñ Tuubaa nakkale jox ko loo xamante nii doomu soxna amu ko boo duggee ci kër gi fekk fi kaamil fekk fi xasida àjjuma gu jot ñu wàccee kaamil defal ko doomu Buur Sine te lenn may ko lu dëgg am jom bëgg boppam fonk boppam te gëm boppam lii rek moo ko may te kon lii mooy nit bu dañoo ci yow lenn newtu fa kon nag jërëjëf suñu maam bur suñ ko mën dofen waaye jaraw lakke suñu baay ji toog di ñoo baay faat jën yàlla ko fi yàlla bàyyi wéral ko te wéral siin gépp ba kenn ku nekk bu amee aajo nga ñëw fi suñu borom fajal la ko ñu ngi leen di sant bu baax te di leen gërëm

man la Massinig Niokhobaye Diouf Fat Diène di Bour Sine maa ngi sant yàlla julli si yonent bi sant suñu waajur di sant waa Sine yëpp di ko tàmbali ci ñii toog fii nga xam ne ñoom la àndal mu di jaraaf masen di bisig Galaaju Touré di njaag Njaay Farba bi Biraan Ba di Sëriñ Siin di Biram Demba fay Ngari mi nga xam ne moo toog fii di Fara Girij di sant Fara Junjung Abdou Ngom ak ñi mu àndal di sant Ndey fay ak ñi mu àndal di sant également ñi nga xam ne dañu mbokk ci Ngaraaf sant Sène wala sant Ngom wala sant Ñaan mais di sant également surtout suma mag ji toog nga xam ne mooy maam Sémou moom fii ma toog moo fi waroon toog mais yàlla def moom mu xaw a tawat mu ni ma fi ma waroon toog demal toogal ma foofu ma ne ko déet mën nga toog foofu ma lay doxal li ma lay doxal mu ne ma boo fa toogee man maa fa toog maa ngi koy sant bu baax di sant également suma mag Léopold njaay ndax Léopold njaay aussi ñun ñëpp moo ñu mag mënoon na toog fi ma toog xëy na yàlla moo ma fi toogloo ma ko ciy sant bu baax a baax di sant également ki nga xam ne moom mooy Paro Jaxaw muy Ablaye Sène Ablaye seen lu ñu xewle te nekku fi dafa mel ni togg boo xam ne togg nga teg xorom nekku ci mais di sant aussi Léo Fell Léo Faye moo nga nële ak Papa Ñing ak suma doom jii di bure nga xam ne papam moo ko bàyyil batterie bii papam moo doon tëgg moom aussi mu jaar fi papam jaaroon ñu jàpp culture ci ñu ñëpp mais duma fàtte nag samay mbokk sama jigéen ñi ñëpp su may doomu baay suma doomu ndey mais suma ma ñaari jigéen ñi toog muy maam jaara njaay maam jaara njaay ñoo bokk ndey moo nekk nii toog sol ay lunettes toog ci kanam ak su ma jigéen jële sax la Touré lépp lu may def fii ma nekk fii nekkuma fii moom moo koy jiite te pourtant suma rakk bu mu bokkal ndey ak baay mu ngi ci kër gi maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax am naa aussi suma benn doomu ndey moo xam ne suma rakk la muy Bour Maye Bour Maye Diouf Ousmane Maye Koor nga xam ne su ma yaay daba jéen mi fi jóge bu yàggul ci loolu sax lañ waroon njëkk a commencé dañ waroon def une minute de silence naqarlu loolu ngeen baal ma ci loolu ndax kooku dem su ma yaay dëgg la woon fu ma taxawoon mu taxaw fa taxaw taxaw yaay mook suma yaay ñoo bokk ndey ak baay doomam a ngi fii bur may am naa nag doomu baay joo xam ne fu ma ne mu ngi suma gannaaw lu may dox moom moo ci jiitu muy Lat Joor mi xëy na dina am ñoo xam ne tudduma leen mais ku ma tuddul nang ma baal mais nag atumaan maa gërëm directeur RTS Racine Talla ane ko Buur Sine nee na mu ngi lay gërëm bu baax mais nag dafa am ndaw boo xam ne moom lañ yaakaar ci Sine ci histoire muy du fay dama ci jàppale ba ni ñi xam ko loolu suma yóbbante la sa diggante ak moom Atoumane liggéey na liggéey bu rëy ñu teg si suñu bët ba ci li muy tabax actuellement nga xam ne bu paree fierté Sénégal yëpp lay ne ñu ngi koy gërëm bu baax di ko féliciter mais nag su ndaw sii day su ma eh, eh, rakk bii Mamadou Faye nekk historien a ah, bëgg naa de nit ñi xam lu muy def bu loolu weesoo lii mooy Sénégal Sénégal Afrique tubaab yi ci suñu culture la ñu dal la dal fexe ba du ñu làkkati làkk bi ñuy lakk looloo tax li ñuy dal yépp di ñu dal la maam yi yore woon te mu nekk lu baax nañu fexe bu ñu rëcc nguur nag léegi ku ko dégg da nga naan ah un royaume dans une république waaw mun na ne mun na ne ñun ñi nga xam ne ñoo koy doxal xam nañ fi ñuy teg suñ tànk ndax jàng nañ comme ñëpp donc lu ñu warul def duñ ko def mais lu war a yëkkati Sénégal lu war a defar Sénégal ñun dinañ ci dugg loolu daal atumaan moo nekkoon li nga xam ne moom laa waroon wax di gërëmaat suma mbokk yi toog fi yëpp ku ci déggul sa tuur xamal ne ah nit day fadu looloo ma dal en tout cas ku ci ne daal na jàpp li nga xam ne moom moo ko moom parce que man fi ma toog tey man kenn rek mënu ma dara ñoom ñëpp a ci jàpp di gërëm Biram Demba mii nag nga xam ne moom ngeen fekk si waxtaan naag moom avant ngeen yegg si moom suma mag la à part lii dafa nekk suma mag parce que mook suma mag ji ñoo bokkoon classe te foofu la ma féete lépp lu yàq rek war a dugg ci royaume bi moom bokk ci yàlla nag ñu fi yàlla bàyyi ñun ñëpp yàlla nañu yàlla suturaal yàlla nañu yàlla defal lafal ñu cat musal ñu ci seytaane musiba ak balaa cat ak lamiñ yàlla nañ ko def ay ati at i kontaan nañu indil nga ñu démb indil nga ñu dëgg wéer nga ci lu xam-xam lii nag la cosaan lii lañu bëgg lii la réew mi soxla moo tax ci turu directeur généralu RTS di Racine Talla ak ña fa nekk ñëpp di ay directeur ñu ngi lay sant waaye ñu ngi sant buur Sine ñoxo bay Fat Diène Diouf ndax lii lépp mooma mooma may autorisation mooma yombal liggéey bi yëpp boole mag biram fay bi ba liggéey bi aw yoon Sénégal gépp tey danañu xam ni dafa woon démb moo am tey te nettali ko war war waxe nga ko siin nag ci dëgg la ñuy wéy siin nag ci cosaan la ñuy wéy siin nag ci li nga xamante ne mooy xar baaxu mag yi ci la ñuy wéy bon nag yaakaar naa ne lii bu amee ngeen defal ñu ko ci senegal ma koy wut ngir indiwaat démb ci sama émission bi Sénégal démb wax dëgg yàlla aw ma loolu ngërëm aw ma ak sant yàlla leen yàlla sàmm buur si ñoo ko bàyyi yàlla na yàlla may gudd fan yàlla na yàlla may wér lii nga dolli ci say baay ak ci say maam yàlla na ko yàlla yàgg nga di ko continuer ñun de kontaan nañu wax dëgg yàlla parce que gis nañu li ñu war a wane te lii moo jar wane li ñu war a wane ci Sénégal bëri na lool waaye lii li ñu war a wane la ndax lii mooy dëgg lii mooy xam-xam lii mooy cosaan te lii moo tax ëllëg xale yi xam fu ñu war a wéeru ndax nit ki bu xamee boppam ay jomb-jomb da koy da koy da day moytu ay jomb-jomb te lii nag wax dëgg yàlla mooy siin Sine nag mooy Sénégal ndax lépp fi la amee lépp fi la xewee ndax yéen boole diina ji yéen a tax lépp rafet macha allah kontaan nañu jërëjëf Buur Sine jërëjëf ñoxo baay jërëjëf Biram Ngari Fay ak ñi fi nekk ñu Ablaye gërëm nañ la directeur Racine Talla yeey dama bu ka yóbbu ma télévision directeur Racine Talla Ndey Fay nuyu na Fay bu jaxaw geweli ñoxo baay juum directeur Racine Talla yeey nuyu na directeur Racine Talla may geweli ñoo ko may geweli buur siin ñoo ko bàyyi directeur Racine Talla Talla sama tukulóor yee yu ma moƴƴi baaba moƴƴi ɓingel waawa taaje Racine Talla nuyu naa la doomi ñaay bu rëy ñu dellu si euh, fii nga xamante ne mooy écomusée bi nga xamante ne mooy euh, siin laata euh, séeréer yi di dugg mànne yi ñoom ñoo fi jiitu euh, boo xoolee tey li nga xamante ne moom mooy may Waly Dione Mané moom moo fi njëkk a nekk buur ki nga xamante ne mooy buur seen ñoxo baay Fat Diène ci biir tamit ba léegi di ngeen di gis yu mel ni ay ndënd waaye loolu mooy ndënd buur muy junjung daana ànd nag ak li nga xamante mooy ak bal muy ndënd mu ndaw nga xamante ni mu ngi ci diggante euh, xiin bu ndaw bi ak ak bàll ak tama junju ngi féetu la ci genn wet waaye ba tey dinga gis ci suuf li nga xamante ni moo nekk ci suuf waaye loolu dañ koy wan gone yi nga xamante ne xamuñu ndax bu njëkk su buur bëggoon am arme xare dañ koy defar ci seeni loxo waaye lii nga xam ne moo nekk ci suuf moom moo doon ëf këriñ gi pour mun a tàng ñu mën a euh, chauffer li nga xam ne mooy euh, fer bi pour def ko matière bi ñu soxla li ñuy bayeek la ñuy defee xareek lépp ci lañ ko doon liggéeyee nga gis tamit ci tablo yi di nga gis foo xamante ni gis nga mbubb yi nga xamante ni buur daka daan sol nga xam ne boo ko xasee sol bal du la dal ak xeej yi nga xamante ni teg nañ ko ci ngir won leen matteelu démb waaye ba tey nañ leen won li siin doon dunde muy napp di mbay di càmm waaye won leen tamit ne siin dafa amoon cosaan muy lan muy lël ndax lël dafa bokkoon ci li nga xamante ni cosaanu siin la waaye tamit ñu won leen ne nguuru siin dafa àndoon ak li nga xam moom mooy saltige boo xoot saltige bu nawet musaana jub si mbaa buur bëgg a génn ñoom dinañu wax li nga xamante nii loolu mooy am ci seen diggante kon pour gàttal daal lii mooy li nga xamante nii mu ngi ci musée bi ànd nag ak seeni géwél ndax ki nga xamante ni mooy Ndening Jóob nekkoon waykatu cosaan bi nga xamante ni moom moo jiitu ci waykat yi ak doomam ji ñuy wax Yandé Codou Sène boo xoj ci suuf ñu ngi leen di uufal ndënd cosaan yi nga xamante ni gorongu euh, mu ngi ci ak ak làmm ñaar ndënd yooyu dañoo xaw a niroo forme waaye benn bokk ci ak sa morom la muy joxe booy xoj li nga xamante mooy tableau yi itam di nga gis lingeeru cupaan yi fi mujj ak seeni njaboot ndax cité bi bu fekk danga boo falo woon yow yaay toog waaye bu sa nguur jeexee yow dangay génn keneen ki falu ndax li koy jeexal mooy ak dee moom daawuñ la fal rek ba mu neex la ñu ne dootoo falu moom boo faloo dee rek moo koy dindi waaye boo fi jógee nag geneen njaboot buñ faloo ñoom ñooy ñëw toog ànd ak seen njaboot dina ci gis yoo xamante ni dañ lay won ni nga xamante ni moom mooy dëkk dëkkinu buur ci biir dëkkam ak biir kër gi ak staf bi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ñi ànd ak buur dina ab taw loo xam ne won na la ne junjung yi ñu la won bëri na ay formule ndax fara junjung bu mag junjung bi muy yor moo gën a rëy ci junjung yi ñooñu ñi sant ngoom ci ngiwél gi ñoom ñoo ko hérité bo ci biir biram dama fay mi ngeen àndal maamam mi nga xamante ni moo doon falu fara girij moom tam gis nga baayam mu ngi ci tableau bi ak man mii taxaw di ak yéen paaru jaxaw ñu ngi ànd ak bursin mayekoor mi nga xamante ni avant indépendance moom moo fi desoon di Boursine lii daal dañ leen a bëggoon li ci biir musée bi waaw te di leen dalal jàmm di ñaan yàlla yàlla def xewul ci kër Buur Sine ànd nañoo du fay mu won ñu pencum Buur Sine léegi ñu ci kër gi kër gi nag dafa am lu bu ñu la ko waxul doo ko xam kooku nag lañuy ñuy àndaat ak Mamadou Faye mi nga xamante ni mooy suñu euh, collaborateur di chercheur wax naa ko sànq di communicateur en histoire xam bu baax histoire Sine Mamadou loo ñu mën a wax ci kër Buur Sine gii. kër gi dafa am nu mu bindoo nu mu bindoo mooy. Euh, kër gi boo ko seetloo am na ay parti parti première parti bi euh, bu fekkente ne da nga dugg ci kër gi dana am parti bu yaatu boo jot foofu nag dafa am ñoo xam ne euh, ñoom lañ ko réserver loon kër gi tamit à partir de 1461 mooy bi Buur Siin la wàccee dañ fay instauré benn système de sécurité boo xamante ni far ba Farba Famaak moo ko yor parce que kër gi ngay gis sécurité kër gi ak famille yu kër gi ak waa kër gi ba Farba Famaak moo yor sécurité boobu Salmakoor yi fi nekk moo leen di monteloo moo leen di relever fii dafa am ñetti poste de contrôle yoo xam ne pour nga agsi fii ma taxaw faw da nga fay jaar boo dee gan di nga fa jaar premier poste de contrôle dañ lay désarmer boo yore arme foofu nga koy bàyyi d'abord bala nga ñëw danañ xool ba xam est-ce war ngaa mën a gis buur wala déet su fekkente ne war nga mën a am audience bañ accordé la audience ci la procédure bii di commencer premier poste bi mooy bunt kër gu mag gi boo jegee foofu dañ lay def arme boo yor foofu nga koy bàyyi boo ñëwee ci deuxième post bi ñu defal la benn enquête bu ndaw bu bokkul ak yañ la defaloon buñ la pay nañ soog la andi ci dernier poste bi ñu annoncé la buur soog la wax ne lay dugg sil nga soog a dugg ci biir kooku nag képp kuy gan ak foo mën a jóge wala nga dëkk ci réew mi te bokkoo ci institution di nga jaar ci post contrôle yooyu mais ñi nga xam ne nag dañu am ndombol tànk ci royaume bi ñoom kenn du leen contrôler bu ñuy dugg dañuy dugg waaw am na nag ñoo xamante ni privilège lañ fi am boo xam ne kenn amu ko mooy géwél yi doomu géwél yi ak géwél yi ñoom duñ jaar foofu ñoom am nañ seen buntu bopp boo xam ne fa la ñuy jaar kenn du leen contrôler bu ñu soxlaa buur fa la ñuy jaar dugg loolu privilège la boo xam ne ñoom ñoo ko am loolu laal ci de façon ramassée ñu leen le am na tamit un génie protecteur boo xam ne <laughs> buñ la ko waxul mënoo ko xam mais mi ngi ci ginnaaw kër mais ci biir kër gi la ne woon mais actuellement mi ngi ci ginnaaw moom mooy Kanger waaw Kanger xam nga ne. moom mooy le génie protecteur de Maasawaali jon moom moo jëlee Maasawaali Gaabu andi ko fii moo jëlee Waasila bii le dernier roi du Sine moo ko jëlee Fatick andi ko fii capitalu Sine yëpp capital bu ci nekk Kangeer moo koy wone waaye Kangeer nag ba mu wonee Waasila fii ba tey wonaatul keneen beneen capital moo tax fii nekk la dernière capitale du Sine. fi ma toog nii fii ngeen di gis fii la ñu denc euh, pour Sine Waasila Faye nga xamante ne ni moom mooy buur bi njëkk falu ci jaxaw capital bi ñu toog kii nag moom moo découvrir kër gi nii ak penc mi ma leen doon woon sànq ci mayu yàlla la ko gisee dox ba découvrir ko gis si ñi ñu ko wonoon mu ñëw ba découvrir kër gi xam ne fii moo war a doon kër gi découvrir penc mi def ko pencum buur boobu ba léegi nag kër gi toxawut penc mi toxawul fii ma toog nag moo nekkoon néegam ndax fii mooy kër buur waaye kër buur nag boo ko déggee buur bu ne néeg la fa am bàmmeel boo gis fii ci kër gi moo doone néegu buur bi bu la neexee sax nga ne moo doon doonoon lalam ndax buur bi bu fekkee ne dafa dafa faatu te kenn faatu ko li ñuy wax mort naturelle dañuy déplacer lal bi daal di ko suul defe naa ne sax am na jànkati tiire yi ñuy wax naan ne bi yàlla kenn du ko déplacer fam faatoo lañ koy suul buuru Gelwaar tamit même chose fam faatoo fa lañ koy suul moo tax kër gi bu ngeen fi duggee am na nee naa la juróom fukki buur ak benn falu nañ ci penc mi waaye boo wàññee bameel yi fi nekk bariwul lool xëy na am na yuñ gisul mais am na yoo xam ne newul fii ma nga ca àll ba buur boo gis ñu suul ko ci àll nag dafa xare ji woon des ca xare ba ñu denc ko comme bàmmeelam duñ ko déplacé bu fekkee ne dañ ko jam mu jóge ci fas wi daanu fa lañ koy denc moo tax am na ñoo xamante ni du ngeen gis seen bàmmeel comme le lion de Fandane Buur Sine Coumba Ndoffé Famaak mi ngi fii euh, San Fay euh, mi ngi xojil kon loolu moo waral seen bàmmeel lii ñii tamit aussi mort naturelle la ñuy def ñu wàccee leen seen kaw lal gas leen denc leen kër gi nag ëppoon na nii bàmmeel bi moo la koy woon ndax bàmmeel boo seetloo presque ci koñu mur bu kër gi la sos kon kër gi ëppoon na nii foofu waaw kii nag mooy fondateur kër gi mooy borom kër gi. fi ma nekk nii mooy xabru Buusin Kumba Ndoofeen Fandeb Buusin Kumba Ndoofeen Fandeb nag moom la ñu tuddee Buusin Kumba Ndoofeen Famaak mooy ki nga xam ne moo xeex fandan ki nga xam ne moo xeex Louga Ndem moom lañ tuddee kii li tax ñu tuddee ko ko nag moom mooy nijaayu yaayam maamam direct la waaye moom lañ ko tuddee différence bi nag li li ci nekk mooy ñoom ñaar dañoo bokkul période donte ñi dañ leen di jaawale parce que kii euh, mi ngi juddu ci atum 1871 kële mi ngi juddu atum 1810 kon kon bokkuñu reñ kële tamit aussi moom mooy le résistant moom moo doon xeex ak colonisateur yi. waaye kii nag moom moo tombee ak Serigne Touba. waaw ñu ngi fii ci xabru bu sin ko mu ndofeen fa Fandeb nag boo ko déggee ci séeréer mooy bu ndaw kon am na bu mag bu mag bi mooy ku mu ndofeen Famaak mooy ki nga xam ne moom la ñu denc euh, Ndofanomaat Famaak mooy ki dajeek résistant yi moo dajeek Pinet-Laprade Famaak mooy ki nga xamante ni moo xeex ak Maba Jaxu kii nag mooy bu sin ko mu ndofeen Fandeb waaye moom lañ tuddee bu mag bi nijaayu yaayam la sëtam la moo tax ñu tuddee ko ko beneen kii bi tamit mooy moom mii. seen différence ba tey moom mi ngi gane jamono vers les années 1871 waaye euh, bu mag moom mi ngi gane jamono atum 1810 seen différence ba tey mooy kii li def particularité am ci biir histoire Sénégal ci biir histoire monde bi mooy moom ci boppam mooy jamono wante ak Serigne waa jaayoon léppam ngir bëgg dëgg feeñ moom loolu mooy particularité loolu nag boo gisee ñu di ko wax toujours mooy li mu incarné ba tax. ñu may ko ay màggali màggal parce que buur bu am màggal moom boo ko dee wër fii rek la am waaw buur bu am màggal te du benn màggal du ñaar le 7 juin moom moom màggal gi le 13 juin Daaru Marnaan moom moom màggal googu le 15 avril bi ñuy def Logandem doomam Farba Diouf moo ko moom te loolu yëpp la mu waxoon dëgg te mu jaral ko bakkanam moo tax mu am loolu waaye moom nag am na particularité boo xam ne li mu defal Serigne Touba moo koy nëbb mooy moom ci boppam. yàlla mayoon na ko xam-xam boo xam ne mayu ko woon ñu bari parce que moom mystique bu ñu ko dee wax moom doo ko yoroon ba mu doy te doo koo fee wone waaye côté boobu nag bu ñu dee wax ci moom côté religieux bi dañuy gën di jël ndax moom mi xam nga kër gi ñu nekk nii Cheikh Omarul Fuutiyu Taal ñëw na fi kër gi nekk nii Maam Maara Mbàkke ñëw na fi kër gi ñu nekk nii Seydina Isa Ruuhu Laahi ñëw na fi kon ñoo ñëpp di ay nit yi diine ñoo xam ne ñëw nañu fi waaye moom nag dafa boole yooyu yëpp ramassé waat ko moom ndax moom ci boppam moo seede Sëriñ Tuubaa benn moom moo may Seydina Isa ruuxu dëkk ak ay tool mooy Layeen Gosaas euh, kaneen yi nekk Kaolack fi ñuy def seen jumaa ji këram la woon Ernest Noiro moo ko mayoon kon loolu yëpp defal na ko lislaam kon côté boobu boo gisee mu gën a siiw ci buur si ni xëy na loolu moo ko may parce que moom nag nit la xamoon moom nit moom xamul foo dëkk xamul foo juddoo xam moom nit lay cëral nit parce que moom boo seetloo defal na ñëpp la defal du murit du tiijan du xaadir taawam sax tubaab la ko tuddee taawam commandant Valentin la tudd ab tubaab la tuddee taawam mooy kooku mooy won ne la moom nit ci boppam la xam moom lay cëral waaw moom mii nag euh, nit ñi wax nañu ci moom bind nañ ci moom waaye tamit dafa am loo xam ne chercheurs yi ñoo ko wax bind ko paa ci moom mais ci lim def parce que Serigne Touba bi ñu koy tuumaal ay nit ordinaire tuumaaluñu ko déedéet ay administrateur ñoo tuumal ñoo tuumal Serigne Touba ne day jënd ay nganaal di ko denc ci këram gi nekk Daaru Marnaan loolu rapport politique bi gouverneur Merlin jot ci weeru mars bi moo tax mu jël décision bi mu jël ba tax mu woote rassemblement bi amoon Saint-Louis ñëpp demoon ci ku mën feen bokk ci réew mi yor na ndombool tànk looloo ko ci boole ba mu demee nag fa dëgg féete la féete la mu doon jaral ay maama mu jaral ko ko fii dëgg jaral na leen dee dëkk bii loolu nag ak ndono la goo xam ne da ko fee fekk fii moom boo naree wax dëgg moom ak boo naree wax leneen dëgg gi lu muy jar da koy jënd ndax kii moo doon wax naan sa jega pomboy sa daat jega pomboy teewu sa jega pomboy kii moo doon wax loolu waaye maamam nag moo doon wax naan bu gor waxee wax ja dañ jaratul muy dund dundam amatul sens kon yii nii valeurs yi moom la donn ba tax keroog bi ñu naree suufeel dëgg yëkkati ko moom keroog dafa ànd ci dëgg gi donte moom kenn kese moo ca féete woon ca wéetoon ca lool waaye loolu nag tey jii bi ñu ko ko fayee moo tax tey jii Buur Siin yëpp presque moom moo ci gën a siiw moom lañ ci gën a xam. fii nag mooy xabru Buur Siin Mayakor Mayakor Diouf euh, kii nag bu ngeen gisee ni ñu ko dencee xaw naa wute tuuti ak euh, ni ñuy dencee yeneen euh, buur yi li ko waral mooy kii yàlla dafa dogal moom dafa teeloon a tuub dugg ci diine islaam bokkoon ju tarixa xadriya nekkoon taalibe Cheikh na sat Sadbu. tout euh, tuddee na ko sax ay doom yu bare bare waaye moom mii euh, dafa yoroon ay ndombal tànk yu bari parce que xam nga moom euh, def na quatorze dix-huit am na médaille militaire boo xam ne mu ngi ko amee Dardanelles fa xeex ba gën a métti am na médaille militaire sergent chef la bi muy ñëw ba pare aussi blessé de guerre la moom tamit aussi bi muy dem ànd na ak ay frère am ku ñuy wax Coumba Ndoffène ak euh, euh, ñeneen ñu mu àndaloon fii moom nag bi muy ñib si comme ni ma la ko waxee dafa ñib si ak grade sergent bi mu ñëwee ñu def ko chef de canton mu jóge ci chef de canton bi ñu fal ko buuru Sine moo tax moom daan na wax naan ñaari mbubb yi ma sol benn mbubb bi tubaab bee ma ko sol bu ko neexee mu jël ko waaye beneen mbubb bi nga xam ne nag Sine ñoo ma ko solo boobu mbubb moom du tilim maanaam boobu day def la différence entre titre chef de canton bi mu yor ak titre buur Sine bi mu yor waaw moom nag moom la ñuy wax ne moom mooy le dernier roi du Sine parce que moom moo tombé ak les années euh, de l'indépendance moom nag euh, san gi biram mbaru moo ko jur woy juram bu góor san gi njob la woon waaye kii jur kooku nag mooy Buur Sine Kumba fa Famaak waaw kooku mooy maamam kon moom kii jur baayam mooy buur bi ngeen gisoon ñu denc ko euh, Ndofane Maat moo jur san gi biram mbaru san gi biram mbaru moo jur kii kon kooku mooy Buur Sine Mayakor mbokk yi ñu ngi toujours ci euh, indiwaat histoire Siin wax naa ko sànq nit ki da ngay laaj ñi xam walla ñi fekke wala ñi dégg te bokk ci réew ma moo tax ñu ngi ci ab place bu danaa bàyyi Abdoulaye seen di communicateur traditionnel ay mbaamam ak ay baayam daan ànd ak di jëflanteek buur siin yi mu wax ñu place yi mooy fan fii ñi nekk mooy fan ak lu fi xewoon démb Ablaye Sène ñu ngi fii ci jaxaw Siin waaye nekk nag euh, ci quartier bi ñuy wax Cupaar nga xamante mooy Kër Gelwaar fii nag euh, barab bi ñu taxaw mooy barab bi nga xamante ni Linguère moo fi daan dëkk ndax xam nga ne Linguère daan na nekk ki nga xamante ni mooy yaayu buur mbaa mu nekk jigéenu buur bi euh, bu muus bu buur musoon dëkk fële ca këram Euh, gelwaar day euh, lingeer day ñëw fii ci dëkkuwaayam ànd ak ay géwélam euh, lu mel ni paar cupaan daana fi nekk ak li nga xamante ni mooy géwélam bu jigéen fii ñu toog nag gis ngeen bàmmeel yi nga xamante ni ñoo nekk ci sunuy ginnaaw lii tamit dencuñ fi benn góor kuñ fi denc rek jigéen nga ndax barab dafa nekkoon barabu jigéen bàmmeel yi nga gis suma ginnaaw ñoom gelwaar yi nga xamante ni faluwuñu ñoom ñoo fi nekk waaye bu doxaatee ci kanam ñeneen bàmmeel ñu ngi fi muy lingeer yi nga xamante ne ay gelwaar lañ te ñu falu atumaan kon fii mooy cuppaan di cité de lingeer